Sénégal yi ñuy laam-laamee seenug dem ci Arabie Saoudi observateur moom xëy na leen yóbbu ba ñu yegg teg ci tegal leen plan de guerre yéenekaay bi ñaari junniy jàmbaar ak téeméeri Sénégal war yónnee Màkka ngir ñu dem geerale ji ko ca Yémen groupe boobee dañu leen di xaaj dañu leen di xaaj ñeent am na ca ñaari groupe yoo xam ne benn bi Alpha lay yoo xam ne benn groupe appui la ñu koy tuddee ba ca des soutien ca groupe ya dina ci am ñoo xam ne ay réservistes la leen di tuddee ci l'armée di soldats yoo xam ne ba ñu demee retraite ak léegi mën na juróomi at li tax xeeti soldats yooyu ñu leen di boolee ci guerre moo di xeetu soldats la yoo xam ne seen wàllu wéy na seen ngañ ci dara bu ñu demee ci ñu ñu jege l'armée bi loolu ñoo leen wax loolee ba noppi tegal leen ci ne coow li am ci dañoo war a yóbbu soldaar ci Arabie Saoudi am déet ñoom seen yoon nekku ci li ñu bëgg ñoom soldaar yi daal moo di soldaar yi ñu bëgg yóbbu ci Arabie Saoudite ana lan mooy illa ji dëgg-dëgg Le Soleil nañu kenn du maître Aladji Diouf fu ne moom avocat bi démb ba muy janoog taskatu xabaar yi ñaawlu na bu baax a baax politique gi ñu bëgg a dugal ci mbirum soldaar yooyu ñu bëgg a yóbbu ca màkka populaire nañu na ko alaaj Diouf waxe moo di ñu wopp ci wàllu politique ay malade politique ñoo bëgg indi coup d'état ci réewum Sénégal grand place nañu moom avocat bi ñi mu gën sippi am meram nag ñoo di waa parti socialiste ndax nee na waa parti socialiste ay escroc lañu réew mi quotidien ne ko yamu rekk ci parti socialiste wax na ci parti socialiste wax ci LD ndax nee na muy parti socialiste di waa LD Macky daf leen a a taskatu xabaar daa wax ba ne gër geex ne képp koo xam ne yaa ngi jóg di dal ci kaw Macky Sall Alaaji wax na ak yow yamale la wax na ci mandat njiitu réew mi maître Alaaji Diouf ne Macky Sall da ko war a bàyyi ci juróom-ñaari at yi mu ko fekk lu aju ci jafe-jafe yam ci biir Benno Bokk Yaakaar wax na ci soldaar yi Sénégal yi ñu war a yóbbu ca Maquette wax na ci soldaar yooyu Le Quotidien moom it xëy na ca wax ndax nee na lu aju ci ñaari junniy jàmbaar ak téeméer yi ñu war a yóbbu ci Arabie Saoudite dogal bu ni mel kilifa yi këri diine ci réew mi ànd nañ ceeg Macky Sall ci xët mu njëkk journal bi nataalub Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalifa kullu murit ak bu sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amine mi yore kàddug njaboot gu Seydi Hadj Malick ñu séq Macky Sall le témoigne nañu moom Macky Sall waa banque mondiale ak waa FMI ñoo ngi ko dar ndax li ñu gis moo di Sénégal jéego yi mu def ci wàllu comme daf caa dellu gannaaw ay salaire jéggi na dayo wàllu indemnité di ndàmpaay dem na ba ëpp daanaka ku ñu daggal la ndàmpaay Sénégal xaalisam lu cëpp foofee lay dem laas nañu waa FMI yi am di ndàmpaay xamuñu kan a yem ndombal tànk ñoo yem li ñuy def ndàmpaay la lañu leen di jox tolloowul mission FMI bi fi nekk laas ñu jàngalekat yeeg li ñu doon ñaxtu mu di ndàmpaayal dëkkuwaay ñu yemale ko mission ba ànd nañ ci ak waa FMI enquête nañu FMI li mu sàkku ci Sénégal bokk na ci li muy fay ay liggéeykatam mu di masse salariale bi mu xool ko gën koo yemale Sud Quotidien ne ko FMI joxoñ na Sénégal lam ko joxar bee nag moo di indemnité yi di ndàmpaay yi ak leeraange da cee desee am populaire nañu mu di banque mondiale di FMI fëgg nañu ci taabal ji ngir bëgg Sénégal yemale am peccam ci baara mbay yi ñu yemale foofee loolee te dali ci Walfadjri mi defub taxaw seetlu jëm ci takk der yi moo xam waa police ak waa gendarmerie yi nga xam ne léeg-léeg dañu leen di tudd ci ay tooxi doona yéen a kaay bi nañu la cay am moo di dañu leen di jàpp tëj leen ngir dëfal njabootuk ñi ñu lor ab la ñuy def ci kaso bi ñu génnee leen ma génn ci Walfadjri dali ci l'observateur ñu ànd dem ci diwaanu Tambacounda benn waaye nga fa boo xam ne li mu mën te sañ ko kenn mënu ko kenn sañu ko Lansana Wagé la tudd yéen a kaay bi nañu waaj day jaay dorog li tax njaayum dorogam doy waar nag moo di ca jàkka ja la daan jaaye dorog ba